jërë ngeen jëf mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ginnaaw bi ñu leen di leen dalal ci xibaaru dañu koy door ak ki nga ancien député libéral Doudouard Wade ginnaaw sorti bi nga xam ne euh, daal dina koy def ci week-end bi moom daal dina euh, confirmer li nga xam ne retrouvaille famille libérale bi nga xam ne moo dox ci diggante euh, ki nga xam parti démocratique sénégalais ak président Macky Sall ba léegi sax Doudou Wade daal di ni kat Euh, ki nga ñi nga xam ne ñooy parti fu nekkuñu li nga xam ne mooy parti bu njëkk euh, te gën a am doole ci li nga xam ne mooy opposition bi bu loolu jàllee ñu wax xale neen lu la xibaar yi ñi nga xam ni terre bi daf leen a impacté ba ñu yëkkati woon seeni kër ci banlieue bu Ndakaaru ñoom kat démb daal dinañu amal li nga xam ne mooy jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñoom kat la ñuy xamle euh, ni dañuy xeex li nga xam ne mooy seeni revendication ak li nga xam ne payoor gi ak seeni ndàmpaay bi ñu leen waroon a jox ñoom kat daal dinañ artu ci gouvernement bu Sénégal buñ ci jëlul ay matukaay nu mu gën a gaawee ñoom dinañ ko doxalee ci beneen i anam bu loolu jàllee ñu wax leneen lu ñeel xibaar yi ñu dem fële nga xam ne mooy ñu wax ci wàllum yoon ki nga xam ne mooy imaam Aliou ndaw ginnaaw bi ñu ko doon tuddee ci li nga xam ne moo ñeel wàllum terrorisme moom ak ñañu doon wax ni ñoom lañ ci doon tuma ba mu jotoon tëdd ñeenti atu kaso tey sax dañoo xamle woon ni dafa waroon jàkkaarloo ak yoon waaye ci ay xibaar sax daal dinañ xam ni boobu le procès euh, moom bokku ca dañu ko renvoyé ba le 30 mai euh, du ñàkk ni dañ ci delluwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar bu loolu jàllee euh, ñu wax ci li nga xam ni mooy wàllum jàngale mi ginnaaw jàng syndicat des enseignants yi amoon ab waxtaan ci diggante ñi nga xam ni ñooy gouvernement bu Sénégal ñi nga xam ni ñoo nekk ci école yu ndaw yi ñoom daal dinañu dindi ba mu set lañu soobu woon ca grève ya waaye sax mu mel ni CEMS ak euh, waa CUSEMS ñoom gisuñu ci seen bopp ndax ñoom kat ba tey ñoo ngi wéyal euh, li nga xam ni mooy grève bi ci ba léegi ñoom sax mouvement des enseignants républicains yi di sàkku ci ñi nga xam ne ñooy kiseem CUSEMS ak CEMS ñu daal di delluwaat ca euh, lekkool ya bu loolu jàllee dañuy dem fële nga xam ni mooy ca région bu Louga ci benn village bu ñuy woowee Ndiobène Makhtar dañu fa nemmeeku ab mbir mu doy imam ba nekk ca jàkka ja moo daldi Euh, la ñu xamle ci ay xibaar ni dafa daal di xaru ginnaaw ba benn waaye doon dem doonu julli ji ca fajar la daal di gis mu daal di jël benn turban daal di ci pendre boppam ginnaaw bi mu jëlee li nga xam ne mooy benn échelle bu maçon yi doon jëfandikoo euh, ca liggéey yu ñeel ca jàkka daal lañ daal di xamle ni euh, dafa daal di faat boppam ci ay xibaar ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy l'observateur quotidien l'observateur daal dinañ xam ne ni moom dafa ay atam tollu woon na ci 60 ans bàyyi ñetti jabar ak ay njaboot ñu dooree xibaaru tagat yaram mi ak li nga xamné moy Cheikhou koyaté ginnaaw bi muy féetee 10 ans ci li nga xamné moy ci si bi ñu japp ni ka sax amna 80 sélection 4 buts ak 6 compétitions internationales nek 4e jour bi ëpp ay sélection depuis 1961 ba légui euh Sadio Mané mo daal di gagné li nga xamné moy mooy euh, Cup bi ci kaw ki nga xamné moy mooy Edouard Mendy ñu jéxalé li nga xamné moy xibaaru euh, tàggat tàggat yaram yi ak sunu euh, bi waroon na dox ci diggante ki nga xam ne mooy Ama Baldé ak Modou boobu boobule combat sax euh, daal di nañ euh, ko dàq ndax ki nga xam ne mooy Modou dafa ame ay gaañu gaañu ñu daal di gis ni ko sax daal di nañ am ñetti weer yoo xam ne daal di nañ ko teg muy weeru août bu juillet ak septembre ci ñetti weer yi daal bu ñu mayuwul ci benn weer la ñuy daal di tëggaat boobule combat ñu am yaakaar ni sax ci weeru décembre lay doon ginnaaw médecin yi daal wax mooy Modou ñu daal di koy may li nga xam ne mooy repos euh, médical ci ab diir mbokk yi sant leen gërëm leen di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal kennaluk jàmm